cher internet yu Dakar Buzz TV dal leen euh, jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé ko source am des soit ci accident bu métti bi nga xamante ni lu mu néew néew juróom benn doomi aadama ñàkk nag ci seen bakkan fukki blessé ak ñeent tragédie bi am na ci duwaanu maatam jilikaay bi def na ci taxaw seetlu te ñuy xamal ni ñaari oto yu màgget nag ñoo mujjee mbëkkante benn oto bi transport public lay def am na nag fanweeri at moom moo tase nag ak benn camion boo xam ne màgget la def tamit am na fanweeri at ak juróom li tax nag ministre bi ñu dénk wàllum transport bi El Malick Ndiaye naqarlu lool nag accident bii nga xam ne am na ci kaw tali bi mu jàpp ne faute nag dul lu dul rek ñàkk a respecté nag code de la route ak règle nga xamante ni teg nañ ko ci kaw tali bi te li ni mel nag dinañ ci jël bi ne keneen ki jël mesure am kay mooy bi ñu dénk wàllu urbanisme Balla Moussa Fofana ni ki démb laa la wax mi ngi woon ci littoral bi doon xool nag ni ñu cëqat cëqatee suuf sa paccoo suuf si te lépp nag mu jénn ci ci am ay preuve surtout ci département bu Géejawaay ak département bu Kër Massar moom Balla Moussa Fofana démb ku ko gis laa la wax dangay yaakaar ne sax ci plage bi la jëmoon wàcc ci terrain bii ngir mën a xam lan moo xew ci littoral bi waaye bu nu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi ministre bi naqar dëgg la jëlee nag ci littoral bi ndax ni ñu doon paacoo suuf ci boppam moo yéeme l'observateur moom def taxaw sell ci musiba mbaba kumba gi nga xam ne bu ñu ko freinéwul mën na yóbbee sunu ndaw yi nag ci guuta ndax drogue bi nga ni su forme de médicament lay nekk moo ngi gën a law nag ci réew mi nit ñi yëngatu ci wàllum santé di def alerte nag état Sénégal ñoom état Sénégal sax yéenekaay bi def na taxaw seetlu ci ñoom ndax fan yii nu ñu gisee arrestation yi ni mu bare te ñu ci bëri nag ay kàddu yu ñàkk teggin dong nag moo tax ñu leen di wóolu ci yoon lii tax yéenekaay bi ne Pastef defim toll nii daa na lam doon yàq nguur Macky Sall koy xëpp jamono ji côté bu nekk laa la wax ñu leen di yàq mel ne xamee ku ci mel ne Ahmed président de la république moo tax fi mu toll nii mu ngi ci loxoy yoon Sud Quotidien ne ñi jàkkaarloo woon ci yoon ni démb kay mooy Mimi ak gorog Macky Sall di Mansour Faye bi Mansour nag ay avocat ñoo demoon démb ca tribunal waaye Mimi Touré 9h ba mu ngi woon ca salle ba lépp ñeel nag plainte bi nga xam ne Mansour Faye teg na ko ci ndoddam ñeel wàllum diffamation délibération bi nag dañ ko suspendre pour l'instant ba le 8 août 2024 nag jàpp ne Mimi dafa yàq Touré ni ki démb ca tribunal ba changé wul yotaa laa la wax ci kàddu ya mu yëkkati woon dafa gën a dëggal boppam tey sàkku nag ci yoon mu daal def liggéeyam ci fond covid yii lii quotidien li ñu war a lijjanti mu di taxawaayu Khalifa Sall ndekete taxaw Sénégal jamono ji mu ngi négocier ak président Bassirou Diomaye Faye bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi le 20 ba la génn am na ab réunion taxaw Sénégal boo xam ne responsable ya nekk ca plateforme a Diomaye président ndax bu nu ko deful tam ku ci mel ne Barthélemy Diaz moom dañ koy sacrifier en tout cas yéeni kaay bay ngay jot na Khalifa Sall ak nguur gu bees gii nag am na lu ñu signé te bokk na ci mairie ville bu Dakar bi élection locale yi la ñu jëm nañu waxtaan ci ba déggoo ngir xool ci ñaari plateforme yi kat lañ ciy jiital bu dee nag jege gi nga xamante ni fi mu toll nii Khalifa Sall mu ngi koy gën a jege nguur gi yéeni kaay bi nee na professeur Abdoulaye li lépp moo ko dox ci suuf na mu gën a rafetee ba rapprochement nga xamante ni ni ñu bëri yaakaaroon nañ ne mënta am mujjee am na ci diggante ñi nekk nguur gi ak ki jiite taxawu Sénégal te moo di xalifa Sall le tey mooy yéene kaay ne parti bi waaj a taska yi du benn parti bu dul APR ndax jamono ji ñu wax ak yéen démission yi mu ngi mel ne tulleeg màlle ñenn ñi moom seen tekk tekkaaral mooy bëgg a bi li waral tekk tekkaaral gi yépp nag weesul nga xamante ne nii ba ñu ko tuddee ba léegi ñoom nelawatuñu ñoom ñu doon liggéey ak Macky Sall est-ce que APR mën na yokk ay jéego nag ba daal di mën a exister ci langue politique gii li tamit lu jaralaaca la surtout ci jamono ji nga xamante ne ni kàngamam yi ñoom ñëpp ngi démissionné léegi ko yéene kaay ne tey ji daal ci àjjuma ji Ahmed Suzanne Camara dana réccu kàddu yam waxoon waaw wala déet ndax tey lañ koy déféere mu jàkkaarloog juge bi ay ñoñom nag bokk ci APR pare nañu pour dem soutenir ko ci tribunal bu Dakar Abdou Mbow di président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar moom jàpp na ne ñu nekk ci réew mi fi mu toll nii ay apprenti dictateur lañ lii doo nga tax arrestation yi taxar naa sa lool nag ci langue politique gi Cheikhna Bokum moom jàpp na ne bal bi dafa tourner rekk ci ñoom bu ñu demee ba ñu daan tey ji bu ñu leen xasee sax ñu gis seen bopp bay yóbbu nit ñi ci yoon lii nag dafay mel ne àdduna day bëgg tukki ne moom niki démb mayul dara laa la wax nguur gu bees gi amul lu mu yàkkul nguur gi rawatina président Bassirou Diomaye Faye moom njiital gëm sa bopp nag di xamle ne ci a toog ci réew mi li muy voyager bari ba léegi mënu koo résoudre kon nag na wàcc avion bi ñu solutionné moo gën ñu ñuy la ay débat yoo xamante ni amul benn sens ay saagu deuxième dame lii mën na ñàkk ci réew bi ndaxte solution lañ gën a soxla vox populi nag moom ubbi ci xët bu yaatu ne bugaan ngay dani kay nee na daf doon recadrer nag nguur gu bees gii rawatina président de la république mi nga xam ne kenn mënu koo teg bët lu dul rek suba ngoon guddeeg bëccëg moom ci avion yi mu jàpp ne nag jot na fi mu toll nii président Bassirou Diomaye Faye toog problème askan bii nga xam ne jamono ji ndaw ñi bu ñuy yuuxu fële syndicaliste yi ñu ngi yuuxu fee Bougane Gueye Dany caaxaan baaxul te seen diwu bii nekk ca biir pale ba fam ñu jëmee nag fi mu toll nii a luñu ndax ndaw ña ngi continuer di ñàkk yaakaar ba waral sax fi mu toll ñu ngi jëm ci barsak barsak gi taba tey ji nguur gi amagu ci benn solution déception bi ndaw ñi am nag jàpp na ne kenn gënu cee yaay président de la république mu wax ci ñetti weer ngi nii président Bassirou Diomaye Faye di dem rek di dem rek moom Bougane Gueye Dany jàpp ne président Bassirou Diomaye Faye dafa jot mu toog ci réew mi xam li askan bi dund jamono ji scandale ba nekk ca mbuurkat yéenekaay bi xamal nañu ne bu ko raw nag moo am ca diwaanu Géejawaay te ministre bi ñu dénk wàllum urbanisme démb dem na fa waaye Balla Moussa Fofana ñaawlu na loolu yenn ci ay ne ñoo ngi ko doon def suuf ko cëqat cëqatee ka paaco mu jàpp nag lu mu dee dee xanaa suufu askan bi booy dem ba koy jaay askan bi ci boppam nga bàyyi leen xel xam nañu ñoom am droit am fu ñu dëkk waaye jël littoral bi lépp jaay ko lii moom dina ci jël ay mesures démb nag mi ngi ànd ak maire bu Géejawaay Khadija Mahécor Diouf tamit mu ngi woon ca wetam lu jëm ci wàllu logement social yi tamit moom ministre bi wax na ci képp ku fi defati ubbi dëkk dinañ ubbi génnee la fa ndax am na yoo xamante nii nag àndut ak yoon libération yéeni moom desuwaat ci scandale bi nga xamante ni am ci duwaanu Zac Mbao juróom Malien war a jël xaalis bi ni mel nag yóbbu ko ca commissariat bu Zac Mbao waaye la ñu ca commissariat ba moo di 450 maanaam 200 yi ci des ñoom juróom-ñeenti policiers yi ba léegi waxuñu fan la nekk lii moo tax nag fi mu nii ñoo ngi ca loxoy yoon ñaari Malien yi nga xamante ni ñoom la jàppee woon ca rond bu Sédima ñoom itamit ñoo ca commissariat ba samedi ci guddi lañ leen jàpp dimanche nañu yóbbu leen ca commissariat ba ñoom commerce de l'or waaye yéenekaay bi xamal nañu ne enquêteurs yi teg nañ ci seen ndodd nag blanchiment de capitaux jàpp ne xaalis bii nekkul xaalis bu lew en tout cas 650 millions yi ñu fekk ci ñoom 450 millions yi kese nag la policier yi yóbbu ci commissariat ba lii moo tax juróom-ñeenti policiers yi ñoom ñëpp teg nañ leen loxo te leen di laaj nag fan la 200 millions yi ci topp nag nekk <laughs> réew mi yenn yàlla dolli jàmm yàlla baax na yàlla bëri na sutura ñu yendoog jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah